gën a ñu jëm ci gënale waaw suñu mbokk yi nga xam ne yéen lañu jàkkaarloo noo ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo euh, ngi leen di nuyu noo ngi leen di siyaare noo ngi leen di baal xaq te di leen balu xaq noo ngi leen di ñaanal jàmm tey sàkku ci yéen itam fa ngeen mën ci toll ngeen di ñaanal jàmm yàlla mi xam jàmm ko jeex noo ngi koy doolee ñaan jàmm noo ngi ñaanal nag way dawlu yi nga xam ne ñu nga ca kërug dëgg yal na yàlla jéggal leen seeni bàkkaar yal na yàlla xaaru leen xàjjana yal na yàlla at leen ci mën boppam ja ci darajay sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa way tawat yi nekk ci hôpitaux yi ak yi nekk ci kër yi ak yi soo sooxale seen tawat yàlla mi nga xam ne xam ne lu nëbb ak lu feeñ noo ngi koy ñaan yal na saafara mbooleem tawati doomu aadama yi yëpp ñi nekk ci fitna yi itam yal na yàlla teggi fitna yi ñi nekk ci nattu yal na yàlla teggi mboolem nattu yi ñu ngi dolli waat di ñaan yal na yàlla doole defal nu jàmm bi xurmati rasulillahi sallallahu taala alayhi noo ngi siyaare nag mbooleem jullit yëpp di siyaare mboolem kilifa diine yi sàmm diine ji di siyaare itam kilifa yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci njëwul tariixa yi wootu seen wayjur yéen ñoom itam ñoo leen di ñaanal yal na yàlla sàmm leen sàmmaale nu naka ñuy sàmmee diine ji ñoo ngi ñaanal nag Cheikh Sidi Mokhtar xalifa Xaadim Rasul ñoo ngi koy ñaanal fa nu guddul lool waxand ak wér yaram yal na yàlla defal ko itam li nga xam ne mi ngi koy sàkku ci liggéeyal Sëriñ Tuuba Xaadim Rasul noo ngi ñaan yal na yàlla defal ko yal na yàlla defal ko li nga xam ne lépp mi ngi koy eh, sàkku ci liggéeyal sëriñ Touba yàlla defal ko kàttan ak defal ko xéewal gu yaatoo yaatoo ba ni mu ko bëggee mu amee ko ni yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def bi jaay si lu jot nuy ñaan itam yéene ji nga xam ne jépp am na ko ci diine ji nuy ñaan yàlla na yàlla defal ko kàttan defal ko wér ak wërsëg yaatu di ko ñaanal mboolem njaboot sëriñ Touba yëpp seexi sëriñ Touba yi taalibe sëriñ Touba yi sëriñ Touba yëpp yu góor yi ak yu jigéen yi euh, mu mel ni itam suñu ne sëti sëriñ tubaay yi bàyyiwuñu kenn di siyaare na kenn ci sët yi ngir sunu siyaare yóbbaale na ko ci mboolem sët yëpp te moo di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Mamor Mbacke moom sëriñ Mouhamadul Mourtada ibnu Xaadimu Rasul noo ngi di ko doolee ñaanal yàlla na yàlla defal ko fan wu gudd lool waxaan ak wér-gu-yaram yàlla na yàlla sàmm ko sàmm ak njabootam yàlla na yàlla defal ko kàttan motal ko yéeneem naal yi nga xam ne naal na ko ci liggéeyal ko way juróom wa sëriñ Mamor Mbacke waaye liggéeyal ko itam maamam ma sëriñ Mouhamadul Mourtada Mbacke yàlla na yàlla defal ko kàttan ak wér ba mu yeggali ko na mu ko bëggee bi jaay si di ko ànd ak moom. mu mel ni nag gannaaw mu dellu si sant nañ borom bi tabaraka wa taala dellu santaat moom mi nu may nu teewaat ci site bi nga xam ne moo di alazhartouba point com ci seen émission bi nga xam ne moo di jotaayu mu kàllaf noo ngi ànd ak ñu ñu baaxoo àndal nag. sëriñ Basirou Seck ndongal Daaru Minam ci caméra noo ngi ànd ak sëriñ maam Thierno Faye mi nu baaxoo àndal ci émission bi réalisation ñu ànd ak sëriñ Soy bu Mbàkke Maar waaye rësi nag ñoo ngi ànd ak sëriñ lamin Touré ki leen di présenté émission jotaayu Mukallaf nag di seen xarit Ibrahima Ndiaye di ñaanal jàmm di sàkku ci yéen itam ngeen di nu ñaanal jàmm mu mel ni nag tey ñëwaat nañu ci bataaxal bopp bi ñu fi jox mu di bataaxelu mag ñu ne mag ko mën a jàng wala ndaw lu mag yar tey bataaxel bi nga xam ne borom bataaxel bi yónnee nañu ko nee na moo di nañu waxtaan ci gënale maanaam gënale soo yoree lu mel ni ay nit yaa xam nga yor ab sarwis personnel ba cay liggéey ci biir service ba nga defal leen gënale xam naa ka gën ca nag ca ñoom nag du ñàkk sax moo lay gënal waaye yow nga firndeel na gën a léegi danañ indi ñaare ak bañante ci ñoom ci seen biir wala nga yor lu mel ni ay soxna lu ci ñaar ñett ñeent waaye nga def ci ak gën a ñu xam danañ indi fitna ci seen diggante ak ak jubóodiku ñoom waaye nag jubóodiku ga ci lay mujj si mu mel ni booy rek njaboot itam. du cee ñàkk moos xëy na ku la gënal ndax wolof njaay dinay wax ne ñaari ginaar sax bu ñu dee xeex am ca gu sa xol faral ne boo sañoon gee mooy man donte xamoo ganaar ya moomoo ganaar ya mu mel ni kon ak njaboot itam noonu la boo ca yoree ñett ak ñeent ak juróom mbaal lu ko ëpp jëm kaw donte ñaar lañu sax mën nga caa gënalee kenn ki mën na laa gënal ki ci des su ko defee nag gënal googu nga xam ne nag dafay faral di am ñu gis ne léeg-léeg dafay indi ay coow ci kër dangay gis rakk ak mag ñu jël rakk ji teg ci kaw mag ji nga xam ne dafay dem ba mag ji yëgal xamal boppam dañ koo suufeel te kenn xamul nag lu tax ñu gënale ko ak rakk ji ndax ñoo bokk benn ndey bokk benn baay te magam ana lu tax ñu koy gënale dafay dem ba cir bu ñu war na jox mag ji rakk ji lañ koy jox su dee ñu nekk ci kër ga di ak ay gone yu war a dem fenn tàggoo dañ ko naan ndax tàggu nga diw te diw moomu nag mooy rakk ji am na mag su dee gan gu ñëw ñu koy nuyul ci kër gi dañ ko naan ndax nuyul nañ la ak diw te diw moomu nag mooy rakk ji te mag yaa ngi ci kër ga. mu mel mu mel ni daal dañoo feggal mag ji feggal goo xam ne e, ku ñëw ca kër ga ñëwati fa xam nga ne mag ji feggal nañu ko waaye mbokki ya nga xam ne itam ñoo di seeni i bokki bopp xam ne ne feggal nañu ko naam gën a le googu itam danay am ba. léeg-léeg nga gis ku am ay soxnaam ñaar ba ñett walla ñeent ñu béjoo gannaawam maanaam ñu xuloo soxna yi xuloo ca kër ga ba jote jàppante ba xay na bu dutoon dëkkandoo ya gaañante mën naa am boroom kër ba ñëw daldi dëggal na kàddoom na leen nag wax naa leen sama gannaaw ba tàyyi na leen bëgguma fi dégg histoire dij naa leen dijati leen léegi nag gannaaw man mënumaa dëkk ci di wax ngeen di def li may man mooy yéen ñëpp may naa leen seen baat dem leen mu mel ni dangay gis léeg-léeg su loolu amee danañuy faju fabu dem kenn ku nekk dem këri mbokkam waaye diir bu gàtt nga dégg ne diw de dellusiwaat nañ ko diw dellusiwaat nañ ko waaye am na ca koog moom doo dégg ne dikkaat na kon gën a léegi dikk na mu mel ni kon kooka daal lañ amoon yelle wàcc ko ah gënal yooyu na ñu gis ne bari na lool lu muy am te kenn xamul lu yelle ji ndax dafa gënoon ci borom këram ndax borom kër bi indi woon kii indi kee am ndax da ko gën a déggal ànd ceeg lu ma doon borom bataaxel bi nee na nañu waxtaan ci gënale moom nag nee na mi ngi ko tënkee nii nee na xoolal kii nga xam ne dafa yoroon ñetti soxnaam. yàlla dogal nag am ci koo xam ne moom daal la mel ni moom la gën a bëgg gën a jubook moom ba daana ko wax secret yoo xam ne du ko wax ñeneen ñi daana ko dénkit loo xam ne du ko dénk ñeneen ñi léegi-léegi muy dem fenn moom rek mooy xam ne jëkkëram ji barab sàngam dana fa dem tey ba suba waaye wujj yi duñ ko xam léegi-léegi mu am yu muy sàcc di ko defal du ko defal wujj yi loolu nag nekk na fa njàmbat wut ji di ko soow dëkkandoo yi di ko wax ba mujj nag bokki ñi muy wujjeel jot ci wax ji woo nañ ko ne ko boo yoree ay soxna danga leen di yemale waaye ñépp xam nañ ne diw mii kat yemale ko ak ak ay wujjam su ko defee dafay waat giñ miim ne ñoom ñëpp laa yemale awma ci xeej ji ak seen kenn gënaluma ci morom ma waaye mel ni loolu daal taxul nit ñi loolu doy leen mu mel ni nag coow la naa dëkk wujj yi itam tax na gënale boobu ñu koy gënale ñu leen di gënale ak seen moroom moomu tax na ñoom seen jëmmi bopp it nag mën mëneetuñu ak kooku nga xam ne moo leen di gënaleel mel ni dañu ko bedd beddi gi ñu ko bedd nag naqari ne boroom kër bi te mënu koo faj ndax li mu man mooy di wax ak moom waaye sant leen na leen nag far force ngeen wax ak moom nag mënu ko loola nag tax na borom bataaxel bi de mooy nettali nee na tax na benn bis mu daldi di woo leen ñoom ñëpp ñoom soxna yi ba ñu teew mu ne leen bis ni ki tey seere leen ne yéen ñëpp may naa leen seen baat ñu ne ko ah mu ne waaw ndax da di ñeent tey it ma war a takk keneen indi fi muy juróom. kon duma man lu may may leen seen baat tàmbaliwaat yorum kër mel ni ñu xamal ko ne ko nag loolu du ni da ngay wàcc kon kenn comme da ngaa bëgg a takk da ngay wàcc kenn gannaaw doo weesu ñeent soo woccee kenn takk ki ngay takk ñëw mu fekk ñett ñi fi des ñeenteel leen waaye boole ñeent ñëpp wocc te ñu am fi njaboot loolu du xel du xalaat mu ne ah, loolu de kon dëgg la kon léegi damay wocc kenn. daal di xalaat ci am xelam nag ne ku mu joxoñ na ko yow laa wàcc nag ñooña kooka dana am lu ko metti ay bokkam am lu ko metti ndax ñoom ñeenti ñëpp ay soxna lañu mu daal di koy waxtaanee nag ñi nga xamante ni ñoo di ay moroom mu ca dëkk ba ñooña ne ni ngay def mooy da koy tegoy bant dang leen di woo ba ñu ñëw nga woo ay mag ay seede ay mu kàllaf ba ñu teew ko defee ñu tegoo ko bant bant bi ku mu dal ci sa kaw kooku ngay wàcc waaye nag dangay xool bu baax ba xam ndax ñoom ñëpp koo ci am baax na koo ci ñàkk baax na mu ne ñoom ñëpp a yem ci man ñu ne ko ah na ko xool bu baax de ndax dañ laa tuumaal ci ne da ngay gënale say soxna te su bant ki la gënal dalee ci kawam faaw da nga ko wàcc ndax seede yee tax mu ne donte dal na ci kawam it dama koy wàcc ndax ko yéen a ma ko tuumal waaye man xàmmewuma leen ñoom ñëpp laa yemale borom bataaxel bi nee na asamaan set na woona jigéen ñi woona ay moroom mu kàllafam ñii seede ñëw nañu ñoom ñëpp ñu ne tirim xamal na leen li mu nar dama nañ bant bi jox nañu kii teg bant yi mu war a teg bant yi kooka moom xamul bant bu muy tegam dul teg day jël rek teg bant yi bant bi nga xam ne nag mooy bant wàcc bi xàmmi nañu ko wan nañ ko seede yi wan ko jigéen ñi wan ko seeni bokk ñu ne ay ca ñu daal jël nag bant yi di teg ba agsi ci ki nga xam ne moom lañ wax ne moo ko gënal moom la bant wàcc bi dal ci kawam dañu yëpp rëcc ko nekk ne ñu xoolante ñu xoolante daal xool nag ndaw si nga xam ne moom lañu war a wacc ndaw si xool bant bi xam ne man bant bi la ñu waxoon kat ne ku dal yow la ñuy wàcc bokk yi xool ko xam ko seede yi xool ko xam ko wujj yi xool ko xam ko ndaw si daal na yëkkat di jooy waaw di jooy borom bataaxel nee na di jooy jooy metti ndax wàcc gi ñu ko nar a wàcc ne jëkkër ji jékki-jékki na ñokket na ko looy jooy bàyyi sa jooy te jóg dugg ci néeg bi waaj nu ànd jël suñuy bagaas ta dem wala ma ne tekk ne ah kii kat defe naa kon moom li mu wax mooy bu ndaw si demee mu dem waaw def ko ne looy jooy jógal ci néeg bi waaj sol sa yére jël say bagages nu dem ah ñu ne nag léegi kon borom bataaxal bi ne gën kon léegi leer na léegi xam nañ ne kon moom gannaaw banta wocc bi dal na ci ndaw si ndaw si nar a dem mu nar a ànd ak ndaw si dem kon kër gi tas na kon moom moo gënal waa kër gi mu mel ni ne kon gënale euh, dem na ba ci la la gënal ngay jël la lépp mën nga koo muñ sëñ Basiru sekk daal boroom bataaxel bi tey daa bëgg ñu waxtaan ci gënale tey yaatu na lool nag ci famille yi yaatu na lool dafa yaatu su ma sañoon wax dama naan ndax ñàkk gënal sax am na kon ñu jox la bataaxel bi. kon ginnaaw boo xamee ne bataaxel bi bataaxelu mag. ak na ci sunuy loxo xam naa balañ ci jublu li ñuy jëkk def mooy siyaarante ak ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ñu te duñu topp ci bis mu ne ah, ñu di ñaanal jàmm di sàkku ci yéen ngeen di ñu ñaanal jàmm rek pour mën di toll mucc ak mos yàlla am na ko yal nañu ko yàlla boole ci dara jëy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barke ahmadul xadim eh, sëriñ Ibrahima kon ginnaaw bataaxel bi teew na suñuy loxo bataaxel bii di bataaxelu mag ñu ne mag a koy jàng jàng wala ndaw lu mag yar ñu ngi koy waxee toujours rek kon xam naa buñ ko mënta jàng ñu sañcee jànge mën cee jëlee luñ ciy xamee bataaxel bi ñëw tudd maanaam tomb bu am solo bu yaatu comme ni nga ko waxee nga wax ne gënale dafa mel ni yaatu na ne ndax sax ñàkk gënale am na xam naa yaakaar naa ne may daanaka noonu laa ko gisee xam naa bu fekkente ne am na fu mu ñàkkit yaakaar naa bëriwut waaye nag xam naa amaana gënale gënale yi mooy doon ay ay ay ay façon yu wuute yuy wuute ndax ginnaaw boo koy seet sax suñu borom ci boppam dafa gënale ci ñun suñu xaar suñu suñu xelum doomu aadama mu gàtt fa mu ndax moo ne euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko tuddee ngën ci kon moom la gën moom la moom la def mu gën ñëpp kon gënale am na foofa euh, waaye nag yaakaar naa moom ni muy gënale ak ni ñu ñuy gënale euh, day wuute ba tax na kon gënale lu mat di seet ndax sëñ Ibrahima dafa mel ni gënale am na ñu koy def defin woo xam ne ku ko gis xam ne gënale waaye doo ca mën a sikkal lenn. waaye am na ñu koy def defin woo xam ne ku ko gis xam ne gën a liggéey waxtu gëndoo euh, kër tas mm-hmm. bu dee ci borom kër a koy def kër ga dina tas bu dee borom yi njaboot a koy def ci ay doomam bu yàggee doom ya tasaaroo te doom bi tasaaroo musiba la bu fekkee ne njiital service a koy def bu yàggee service ba tas euh, mu mel ni gënale daal kon yaatu na waaye am na defin mm-hmm. ndax euh, ni koy waxee xol moom fokk euh, lu daje fi wetam am ci lu mu gën a bëgg te foofu mooy waral gënale waaye nag jotee ñu ànd ci ak ngor kii de moom a gënal waaye du tee nag dinaa fexe ba wàllam rek laa koy jox ku ci ne ma jox ko wàllam waaye kii kër moom a gënal kon li ma neex lay tibb jox ko kii nga xam ne moom gënalu lu ma neex laa koy masal loolu moom du yoon ginnaaw yaa leen boole ñoom ñëpp andi leen muy bu fekkee ne ay soxna la yaa wuti soxna yëpp andi fi bu fekkee ne ak njaboot la nit ki ay doom yaa wut ay soxna sàkk woon suñ borom may la njaboot ba yàlla may la ko muy ay doom bu fekkente ne ab service la yaa sancoon sa service wala yow lañ fa jiital nga tànn sa mbooloo dugal fa dem na ba ci bopp ñi nga xam ne ñooy gouverner muy gouvernement dem na ci yaatu na ci yaatu na lool ci lu nekk maga ca kon bu fekkente ne ñoom ñëpp yàlla def ne yow la ci ëpp yaa sàkk woon ba yàlla defal la la nga soxla kon yow it na nga ca doxee xel mu rafet kii moom a gënal waaye nag naa ko jox wàllam jox kii wàllam leneen la nga xam ne yaa ko moomal sa bopp nag te yoonu kenn néewu ca boo neexee koo wéetal mosal ko ca loola ak gënal la goo xam ne euh, am nay teggin ndaxte ni ma ko waxee rek xol bi mënta ñëpp mënuñoo yem ci moom waaye nga doxee ci am xel waaye nag Euh, ni nga ko waxee léegi ci euh, góor googu ni mu defee xam nga kooku moom daa mel ni boo seetloo fa mbir ma jeexe te ba bant ba dalee ca kooka lam ca daay teg looy jooy euh, dugal sam néeg dafa say bagaas sañ ànd tëwee kon nam wanee foofa rek wan na leen ne kon ca biir ba dañoo agsi foofu yi dafin wu ñaaw doon defee waaw dafin wu ñaaw la ko doon defee ndax bam mu ba mu demee ba sës lu ñaaw la wane mënoon na ko wane neneen waaw nu dul noona waaye nag depuis lu ñaaw lu ne euh, résultat bi day ñaawi rek loo tàmbalee fu ñaaw lu ne mu ga it day ñaaw rek waaw kon gënale euh, lu mat di seetaat la euh, boobu nga am sa ñaari soxna dem di xotti piis xottil kii wax xottil keble nga dem di xotti piis xottil bu gani laa xottil kee ab bassin waaw mu ngóog waaw mu ngóok baa nga jox kee la muy yellool euh, xañ ko kële te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yelloo woon loolu nga jox ko kii bàyyi kële xam nga yooyu yëpp nag boo ko dee seet mooy yàq sa kër maa sanc sama kër waaye dinaa ko tas ndax boo ko dee seet gën ci anam boobu dafa xaw a mel ni wuute wut ak li ñuy wax bu rambaaj waaw gën bu yàggee dëgg dëgg bu fesee dëgg dëgg ak rambaaje lay doon day jaxasee mbooloo ndax sëriñ Ibrahima su ma nekkee ak yow euh, cër bi nga am ci man nga am ko ci sama moroom mi tama taxaw di xool mu leer ma ne yow fi nga fi nga teg sama moroom mi ma faa teg bu yàggee dootuma dootu dootuma la sopp dootuma sopp kii ndax waaw ndaxte doomu aadama kooku wan ne kii la gën bu yàggee mbañ bañ kooku waaw kooku wan ne kii la gën bu yàggee mu bañ boo ko tee dafa mel ni gën a la boo koy topp ba mu yàgg day xaw a mel ni sax wax dëgg dafay araam ndaxte ku mënta baaxal sa bopp boo bëggee sàkk ci ñi fi nekk ku ci gën a ku ci gënu kon yaa ngi bëgg a dugg ci beneen domaine boo xam ne du sa wàll waaw euh, beral sa waay loxo nag ndaxte ki nga xam ñi nga xam ne ñoom nga nekkal euh, ki gën ci yow fokk nga beral ko loo xam ne moom itam doo ko defal moroom ndaxte de mm, dañuy wax ne bakkan bu nekk nag jàmm rek la bëgg waaw kon ki may jàmm doo ko yamale ak ki lay wan leneen lu dul jàmm waaye loola man book boo fekkee ne yaa ngi koy def te ñoom ñaar ñoo bokk ci yow yam ci yow na nga fexe ba ni nga koy defali kii kee moom bu mu ci yëg dara na doon doon defin wu sutura defin wu lakku defin wu wu nëbbu woo xam ne lii kat ki koy defal sax dina xam ne defoo ko ngir gënale ko dafa mel ni daf lay lebal bor booy fay waaw ñaar bu ñu bokkee nekk yow kii di la lebal kii doo lebal dara booy fay ki lay lebal dara ngay ngay fay waaw ñaar bu fekkee ne dina bokk dina bokk nekk fi yow ñoom ñaar ñépp ñu bokk yam benn cër ci yow kii boo ko santee mu lànk nga sant kii mu def ah, ki ngay sant muy bañ du bokk ki ngay sant muy def foo leen foo leen teg kii nga xam ne loo ko wax mu def ko defin te te nga ko bëgg kii loo ko def mu def ko definu ñàkk pexe bate tey doo leen yamale waaye nag lu mu ci mën a doon nga boole ci sutura boole ci yar boole ci teggin ndax lépp lu mën doon nag am na defin wow moom boo ko dee defee yar dafaa jóg ay teggin jóg fa sutura jóg waaye ñett yi fu ñu daje fu ne looy def lu ne da ko teg ci aw yoon waaw kon sëriñ ibraahima naa la delluwaat kàddu gi. jërëjëf sëriñ ndongo Seck ndongol Darminam ci faram fànce goog faram-fàccee nga ko bataaxalu mag ñu ne mag ko mën a jàng wala ndaw lu mag yar bataaxalu tey bi nag dikke ci gënale gënale nag di baat bu yaatu wax nga ko neenga yàlla mi bind doomu aadama yi moo jëkk a gënale def defub yàlla nag la doomu aadama warta roy ndax yàlla bëggul kenn kuy ñëw di ko diir mbagg ci lenn moo tax loo ko diir mbagg yow doomu aadama bi day daal di araam ci yow te gën yàlla ko moom mi ngi mel ni rey yàllaa ko yeyoo moo ko jagoo moo ko war a def waaye keneen ku ko def ku dul moom dees na laaj lu tax nga def ko lu tax nga def ko nag laaj bi lu ne mën na caa am mën nga caa dem ba yow mi ko def ñu rey la mën la cee tëj kaso mën la liggéey nga def yàlla nag bu reyee kenn du ko tëj kaso ndax kenn mënu koo jugé kenn mëtu ko avocat kenn mënu ko dugal ci kaso kenn du ko rey ndax moo yor dund mënee su koo liggéey itam ndax lu nangu mooma te moo yor nangu te liggéey bu nekk bu ca nangu amul dara du ca am moo xam muy baax muy bon xam nga lu tax kon gënale baaxul ci doomu aadama mooy li ko yàlla yeyoo te wax naa la ne ci rub yàlla la boo xam ne moom rekk moo ko moom moom rekk moo ko sañ wax na ne saa yesta yastafi man yashaaw man yàlla may tànn ku ma soob kon loolu mooy maay moo mooy maay euh, tànn ku ma neex teg ci ne inna fadlallaahi laysa muxtasar kooku sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo ko wax yutiihi man yashaaw minal basar kon loolu yëpp li muy firndeel mooy ngëneeli yàlla yi sëriñ Touba ne kenn du tànnal yàlla ki mu koy defal moom moo xam ku mu koy defal ku la neex te neexut yàlla mënoo ko jox ngëneel soo bëggee maam na fay lool sopp maam Thierno Faye lool bëgg maam na fay sa xol ba tax nga bëgg koo defal ngëneel te yàlla nanguwut du sotti inna fadlalaahi laysa muxtasar inna fadlalaahi laysa muxtasar yowti yi daal man yashaa'uhu minal basar yàlla daal dina ko jox ki ko ñax ci bindee fi kon loolu li muy firndeel mooy gënale yàllaa ko moom ndax moom li tax mooy dafa xam ki gën ak ki gënut ñun nag ki nu neex la ñu xam ak ki nu neexul maam Thierno ñu dem la si dellu saa waxtaan bi. waaw sa soxna si maam Diarra. maam Diarra dafa am doom. allo. jeex na. Mouhamadou Lamine sama papa dafa ma woo léegi crédit dem dagg. de de desuloo foofu carte. waaw xanaa xamoo Kool Touba. Kool Touba. toogal la. Kool Touba. site internet la boo xam ne nii foo mën a nekk ci àdduna bi mën nga jëndal crédit ku la neex. sa baay boobu la doon woon léegi mu dagg mën nga koo jëndal crédit léegi mu jot ko ci portable. ah bon bien sûr maam jaara moom mën nga ko jëndal mën nga jëndal crédit say am di jàmm say xarit ak ku la te rax ci dolli boo nekkee fii ci États-Unis wala nga nekk Canada non seulement da nga a jëndal keneen mais di nga mën a jëndal sa bopp en toute sécurité damaa tàmbalee wax rek uh-huh. ne ko euh, maam jaara na am na gone ko am naa doom rek na ko ah. waaw waaye kër gi baa jeex mu dagg waaye jot naa ko wax moom ne ko am nga doom ah man de jot naa crédit. am nga crédit. crédit bu bari sax. jógee ci eh. service bu ñuy wax Kool Touba. woo woo ko yeggale ko wax ko doom doom ji na ko doom ji góor yi. kon maa ngi ko ci woo léegi. ci ko ci nga ko. waaw. ah maam. waaw. dikkaat naa ah, lu mu doon. ah yow it de message bi lañ la envoyé. muy la service bu ñuy wax Kool Touba ne am nga crédit. am naa kër ah, ah, loolu li muy firndeel mooy wax nga ko sànq nee nga yor ñaari soxna dem xottil leen kii Lagos kee beneen tiis yi mën nañu sax même tiis waaye nga fexe ba am noo joxe kee am ñawam njëgu ñawam mm-hmm. te kee ko fekke mm-hmm. wala nga jaar ci téer bi koy ñëw wala nga ne ko boo demee jox ko téer bi nee ko naa ko jox loolu yëpp mën nga ko nëbbu ki nga koy nëbb waaye mënoo ko nëbbu yàlla yàlla xam na ne yaa ngi gën a leen ndax ñoom ñaar ñii kenn ko nekk ay bokkam dañu am ci yow yaakaar yëkkati ko jox la te doomu aadama la te doom doom la te ki gën yàlla ko xam te ba ngay ñëw ci kenn ku nekk lan nga wax ay way juróom bañ jox la ko bokkiwut ak ba nga demee ca ginnaaw nag di gënale kam fa fekk mbaa ka ko fekk kon loolu li muy firndeel mooy gënalee ngoogu wax naa sànq ne nga jël cirub mag jox ko rakk yaa xam ndax rakk day liggéey eh, rakk day liggéey mag liggéeyul yaa xam mag dafa am xelam dafa dese yaa xam ndax mag dafa mën a wut ak yow ak lu mën a xew jàmm daal mag bi muy mag la yàllaa ko def mag kon bàyyil yàlla ak cëram boobu mu def la tax mu def ko xam na ko kon gën lee ngaa ngi noonu déggal rakk te déggaloo mag di digal rakk digaloo mag di defal rakk defaloo mag di wax ak rakk di waxoo mag gan gu dikk nga présenté ko rakk doo ko woon mag lépp looy def tàggu rakk ji te bàyyi mag bi loola itam mbir la moo xam ne ab pas-pas la ab pas-pas nag euh, Cheikh Abdoul Bachir mm-hmm. bala nga koo mën a tàllal mm-hmm. da nga koy fecc rek pas-pasub yàlla waaw jërëjëf seen Ibrahima comme ni nga ko waxee rek noonu la euh, boo ko defee noonu nga ko waxee sax nga xam ne comme jox mag euh, cër bàyyi rakk naa jox rakk cër bàyyi mag nangam nangam yëpp ñaare boo ko defee di ci ëpp sax ci am koom képp lañ koy wér. ñaare doo dem ci génn kër fekk mag ja di liggéey te rakk ja liggéey ñu fab cër ñu fab cëru mag cëru cëru mag ba jox rakk. boo ko gisee rek ñaare rakk jaa daa jékku tam ak di jékkuwut. Mm. comme ni nga ko waxee léegi ne gënale cërëb yàlla Euh, suñ borom boo ko seetloo ci li ma départ sama wax sax yaa ngi ko fay wéralaat ndax dama ne ay yàlla moo jëkk a gënale waaye dafa mel ne gënal ak suñ borom ak suñ goog ñun daa bokkut euh, te ndax damay dégg sëñ ambay am lu muy wax day wax ne yàlla bu ko neexee mu ne bu nàngam amee ma def nangam nangam joojee am talam waxoon ne dinaa ko def doo ko teg bët talam waxoon du tax mu dañ xam nga li ma wax mu mel ni kon gënale yàlla moo ko moo ko moomal boppam ni nga ko waxee gënale cërëb suñu borom la yaakaar naa wax naa sama biir wax sax ne ku mënta baaxal waroo ne kenn gën suñu borom nag moom moo sax moo mën a baaxal moom mi mën a baaxal kon lu ko neex gënal ko gannaaw moom moom baaxal bu ko neexee ne lii laa def muy gën lii laay def mu gën li ci des euh, mu mel ni waaye dafa mel ni euh, waxtu bi yaakaar naa ne li ci des amatul solo comme ni ñuy def mooy jéem a tàggatoo ak ñi nga xam ne ñooy ñoo ñu ngi jàkkaarloo ak ñoom ni ñu koy defal rek di leen ñaanal jàmm rek toujours di sàkku ci ñoom it fon toll rek ñun di ñu ñaanal jàmm mucc ak mos yàlla am na ko yàlla nañu ko yàlla boole ci darajee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëfati Cheikh Mamadou Bachir taalibi Daaru Minam <coughs> mu mel ni boroom bataaxel bi li mu soxla woon ci bataaxel bi itam mu def nga ko ci tam moo di faram fàncee li mu tënkoon ci wàllu gënale tey ñu ñu jàkkaar lool am nañ ci wàllu ñoom itam mel na ñoonu gën a xam waxtaan wi kon gannaaw boo faram bataaxel bi li des dañ koy bàyyee ak ñoom su ko defee ñoom itam ñu ñëw ci seen xel ak seen xalaat ci wàllu gënale xam naa daal daañu leen fàttaliwaat numéro bi ngeen xam ne ci ngeen war a wooyee te moo di 77 544 02 15

wala ngeen woonu ci 70 743 98 21 70 mooy numéro boobu ngeen di gis mooy daw ci suufu écran bi euh, képp koo xam ne am nga loo bëgg a dool ci waxtaan wi boo nu ci wooyee danañ ko jot su fekkee ni itam da bëgg ñu invité la. su fekkee ne itam dafa am noo gisee waxtaan wi ak loo ci bëgg ak noo bëgg nu koy doxale numéro baa ngi noonu mën ngeen nu ceewoo incha allahu da ngeen nu jot nu waxtaan ci nu ngeen ko bëggee ndax kii wax kii déglu mooy mbokkam maam Thierno nag yaakaar naa ne waxtu wi eh, jot na kon duñu mën lu dul tàggu ñi nga xamante bi ñooñu doon seetaan eh, sunu loxol ndeyjoor sëriñ Basirou Seck ndongol Daaru Minam mi ma baaxoo àndal ci émission bi moo fi nekk eh, ki may jàkkaar sama caméraman Euh, maam Thierno Faye mi nu baaxoo àndal ci émission bi réalisateur nekk sëriñ Sohaybu Mbàkke maar waaye nag reçu ñu ngi ci ànd ak euh, sëriñ Lamine Touré ki leen doon présenté émission bi nag seen mbokkum taalibe seen xarit Ibrahima Ndiaye di leen wax nag asalaamaaleykum